mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak eh, jàmm Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni eh, nekk koo xam ne ku ñu ràññee la lool ci réew mi di Sénégal Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni nag yëkkati ay kàddu jamono ji nag réew mi di Sénégal ni muy daal di doxee nag mu yëkkati ay kàddu di ko jëme ci li nga xam ne rek moo xew ci réew mi di Sénégal ginnaaw Ousmane Sonko nag biñ ko wooloo nag ci coow dox ci digganteem ak kii di Mame Mbaye waral lekk li nga xam ne jamono ji nag moo xew ci réew mi di Sénégal daal fii xew nag Serigne Modou Kara Mbacké nag yëkkati ay kàddu di ko jëme ci la wax ne ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko nag nañu ko may jàmm waaye itam ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko na may jàmm su ko defee ñi nga xam ne rek ñoo di takk der yi am jàmm ndaw yi am jàmm mag ñi am jàmm su ko defee Sénégal mën na nekk ci jàmm bu ñu nangu benn yoon ñi nga xam ne rek ñoo di suñu noon dañu reetaan loolu nag kàddu ki nga xam ne rek moo di Serigne Serigne Modou Kara Mbacké la mu nekk kaddu yoo xam ne kaddu yu tënku la di ko jëmee ci li nga xam ne rek moo di situation bi nga xam ne rek réew mi ci daal di nekk